jeewali iblisa isna taytuhu biya wali ayasa minni lawhin da jeewali iblisa isna taytuhu biya wali da jeewali iblisa isna taytuhu biya wali ayasa fi waaju sell te baax te moo di Seex Abdulaat jàmbaar ja sañ ci belal ngir moo fi def lu fi kenn dootul di def abadan moo defaraat jikko yi ba ñépp tub sellal ku baax ka taamu woon askan wu sell te yiw woo xam ne seen maam ak seen maamaat ya kenn jéngul te loolu askanu mbaakol lan ci xam ci lu wér ñoom jàng ak jàngaleeg jubal liggéey sellal sëriñ ba tànn fa mammare ma mii sunu maam sëriñ ba tànn fa mammare ma mii sunu maam sëriñ ba tànn fa mamare ma mi sunu maam ak soxna faati jaxate mi meññ sun maam jasañ ci njurul sangub sang yaa ngi gaañi bi xarnu moo ci gën jógal bàkku yow doo cuune yaa man ci mbërile sëriñ abdoulayi laat ibnu xadimi samat réew maa ngi lay nuyu tey ñaan yàlla may la ndimbal Cheikh Abdoulaye laat kum jamonool jëriñ na la boo ko yëgeeg boo ko yëgul defal na la xëy mi dira ma fi jëmi addi borom Tuubaa jërëjëf mbokk yi ni déglu dinu seetaan noo ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké xalif général des mourides mu yàgg fi loolu te wér waaye di ñaanal it bu baax sëriñ Sidi Mbacké xalifa sëriñ Abdoulaye Lahat sama boroom dolli ko fee yàggal te dolli ko wéral mbokk yi bis bi nga xam ni weer yi yëpp moom la ñuy waxtaane ci télévision yi ci site internet yi ci rajo yi ci mbooleem réseaux yi bis boobu tey ji lañ ci agsi muy bisub jàmbaar ji bisub jëmm ji nga xam ne jëmmi lislaam la woon taxawal fi ummatal islaam bi yépp doonoon koo xam ni yàlla rek ko ñoroon ak yonente bi ak waajuram bu baax wa sëriñ Tuubaa mooy ki jaayoon ak njureelam jënde ko ak taalibeem moo waxoon ni ubaydu rabbihi wa ibnu sayqihi nañ koy wooyee loolu moo ni woon it bu ko kenn wooyee xalifa ba am ñu ko daan wooye naayib muy Sëriñ Abdou Lahad Mbàkke mooy jëmm ji nga xam ni alxuraan rek moo ko ñoroon Sëriñ Abdou Lahad bi mu ganee jamono 1914 ci njaareem Sëriñ Tuubaa Xaadim Rasul moo ni ku man aw turam sa yaram ara mën na sawara magi taalibe bi yëpp àndandoo naan Abdul Ahadi yéen doo koo wax ba ngoon jot kooku nag bisam lañuy fàttaliku tey jii muy bis bi nga xamee ni ci la gane woon jamono waaye muy bis bi nga xamee ni itam ngërëm yi mu am ci Serigne Touba xaadim rasul kooku mooy ki nga xam ni moo yàkkali woon dëkk bii di Touba moo tabax li nga xam ne mooy daare kaamil moo miire armeel yi moo tabax autoroute bi aller retour Touba ak Mbacké waaye moo def résidence xaadim rasul moo defoon hectare yu bari miire ko ngir xam-xam tudde ko université Serigne tubaa Khadim Rasoul moom la amoom Cheikh Mamadou Mountakha taxawal nii waaye mooy ki nga xam ni moo ne woon jumaa ji dafa xat moo ne woon li ko wërit garab yi it des ci toog di waxtaanee àdduna dagg naa ko waaye damay yokk jumaa ji dama koy yokk ci gànnaar yokk ci saalum waaye yokk ci sow bi kooku mooy Serigne Abdoul Ahad Mbacké mooy ki nga xam ni daa waxoon ni tere yi ci dëkk bi te dëppoowul ak lislaam dëppoowul ak war may dëkk bi sama bakkan bii laa ci teg kooku mooy sëriñ Abdou Lahad lépp lu ñuy aaye ci lislaam rawatinu dëppagut war may dëkk bi mu jëlee ko fi jëmm jooju nag mooy ki nga xam ne bu daan wax ci alxuraan lay wax mooy jëmm ji nga xam ne alxuraan ci sabab ci démb moo tax mu feeñ jamono waaye jëmm jooju nag mooy jëmm ji nga xam ne itam su ma saana jàkkaarloo ak nguur wax leen li ñu war a def waaye su ma saana jàkkaarloo itam ak noonub lislaam kenn du ko ñime kooku mooy sëriñ Abdou Lahad Mbacke ngi wuutu nag Euh, Serigne Fallilou Mbacké 1945 ba 1968 1968 euh, ba 1989 la wàcc ab liggéey waaye nag alxuraan fay na ko sëriñ Touba fay na ko waajuram bu baax wa moo ne woon malakanil quraana tamlikan yadduum bi ànd na ni xillun wa hibbun wa xaddim waajuram bu baax wa moo waxoon loolu waaye waajuram bu baax wa it moo waxoon nii kitaabun karimun narju minallahi rahmatan wa nanju bihi dunya wa uxra minal bi moo tax bi Sëriñ Abdu Lahat Mbàkke wàccee moo tabaxoon daari kaamil ni kër alxuraan a ngi nii waaye foofu lañ ko yóbbu foofa lañ ko denc jëmm jooju nag la ñuy fàttaliku tey ah taawam bu baax bii wuutu ko fi yal na fi yàgg lool te wér muy Sëriñ Sidi Mbàkke waajuru nag jëmm ji nu toog ci këram tey mu di ko màggal muy soxna maam Assa Mbàkke bintu Sëriñ Sidi ibnu sëriñ Abdoulahat Mbacke ibnu Cheikhul Khadim bis boobu nag soxna ma Massa bi mu koy def da koo def ci ndigalu sëriñ Abdoulahat sëriñ siidi mi ko fi wutu ndax la sëriñ Abdoulahat bëggoon rek loolu la sëriñ siidi bëgg waaye def ko it ci ndigalu ay mbooleem waajuram yépp ñi ñi nga xam ni njabootu sëriñ laxat du ma ni sax ñu góor ñi rek dama naan ba ci soxna yi mu woote ko nag woo ay xaritam waaye ay wëlëreem waaye ay am di jàmmam waaye nag ànd kook kilifaam gii di borom këram muy sëriñ Abdoul Ahad Sylla mi nga xam ni ñoo bokk Maxtaar Marema ak Mañaaw Marema di mbokkum sëriñ Sidi waajuram tey jii nag bi nu xëyee ñu jàng alxuraan waaye jàng xasida di ko durus fas yéene di ko yëkkati ci bëccëg bi danañu ànd ak def ay bernde bis bi bisu bernde la noonu lañ koy yendoo waaye nag kilifa yi nga xam daa bokk ak ñoom sëriñ Touba ak xarit yi ak wëlër yi ak am di jàmm yi ñépp ñëw fas yéene ànd ak moom bés bi di ko siyaare si ñuy ñaanal nag waajuram wu jigéen wii muy ajaratu aram gay sa borom guddal aw fanam te yokk wéram ci barkab Cheikhul Khadim. asalaamaaleykum jërëjëf ngi sant bu baax a baax a baax ñu sant yàlla julli ci bi sallallahu alayhi wa sallam moo ngi sant Cheikhul Khadim bu baax di nuyu ñu fekk ñëpp di leen siyaare bu baax a baax. waaye di ñaanal bu baax a baax sunu kilifa gu baax gi di Cheikh Mouhamadoul Mountakha ñaan yàlla na fi yàlla gën a bàyyi te wéral ko mboolem njabootu Serigne Touba gépp di bu baax borom bis bi tey di Serigne Sidi Mbacke mu Cheikh Abdou moom di ñaan yàlla na ko fi yàlla gën a bàyyi te dëgëral ko te wéral ko ak mboolem njabootu Cheikh Abdou Lahad gépp di sant yàlla bu baax ci teewaay bi nag sëñ Maodo li nga wax. bu ñuy seede ci soxna si dañuy tàmbalee ci euh, maamam ju baax ji si Abdou Lahat radiyallahu taala anhu nga xam ne képp ku xeemeem yoonu murit wala nga xeemeem nekk ab murit wala nga xeemeem sax li ñuy wax ak morit eh, sëñ Abdou Lahat liggéey na ci liggéey bu rëy rey yàlla dogal ñun ñi sunu waajur sëñ Modou Mamoun Niang moom moo nekkoon loxol ndey joram moo nekkoon li ñuy wax secrétaire particulier monsieur Abdou Lahat bari na réalisation yoo xam ne Serigne Abdou def na ko ci dëkk bi yàlla def na tawféex mu jaar ci loxoom moom moom Cheikh Abdou Serigne Modou Mamoun moom. Euh, mën nañ cee tudd benn rek muy daare kaamil ji ci ëpp ci ñi amoon tawféex yi taxawul ko Serigne Abdou ci la bokkoon mi mu nettali li waraloon la waraloon daare kaamil ci ngay xamee yittey Serigne Abdou yitteem ju kawe ndax nee na dafa am bis boo xam ne. sëñ bu ak sëñ Abdou Khadir dañoo fonkoon liir lool maanaam dañoo fonkoon euh, di di liir am xeeti xam-xam yi gën a kawe da leen a ñoroon njabootu sëñ Tuubaa gépp sax loolu da leen waaye nee na sëñ Abdul sëñ ak Khadir ak bu dafa bari lu ñu daan soxla ay téere di ko àbb loolu nag bi mu na toq ci noppu Cheikh Abdoul Ahad ci la waxoon ne daal fas na yéene defal fi sëñ Tuubaa kàggu goo xam ne benn téere dootuñ ko wëteeti fenn ci àdduna daal def yitte ci tabax bi bi mu noppee nag mu yebal leen ñoom ñooñu sëñ Modou Mamoun ñu ci la bokkoon sëñ Sam Mbay ci la bokkoon alaaj Jili Mbay alaaj Njuge Kebe mbooloo lañu woon nee na bi ñu demee keroog bis bi njëkkee ñëw indi conteneur yi nga xam ne téere yi ay conteneur lañ ko def ñaari conteneur ñu gaare ko fii ci bunt daare Kamil sëñ Abdoulaye dana ba lañ cee ubbi benn nañ woowee sëñ sëñ Abdou Khadir ak suñu Chouaib bi ñee may leen yéen kat daa yittewoo xam-xam ba daa ko abbi fu ne bis na ko tey nag na nga xam ne loolu wàcc na nga ne mbooleem xeeti kutub yi nga xam ne euh, borom xam yu màgg kutub yëpp téere yi gën a raat ci àdduna àndaale nañ ko fi keroog mu nekkoon valeur xaalis bu takkoo takku bu doon jamono ji nañu wax ne ay milliards la loolu ci ay injazaatam la bokk. waaye nii mu valoriser tubaab ba mu mel nii mu mel ci lépp loo xam ne lu yellawut ak dëkk bi la loolu doy na sëkk ci sedde kon bisam bisub ci Abdou Lahad bu ñu ñëwee fii ci kër gi bala ñoo wax dara dañuy delloo njukkal Cheikh Abdou def ko dañuy wax rendre hommage ñaan yàlla yàlla yokk ay leeram yàlla na bii rek damay xalaat eh, ci Sëñ Abdou di wax ne tawféex ji ko ji yàlla njëkk a def ci moom mooy keroog bi mu gënee jamono li Sëñ Tuubaa wax ci moom ne ku mën tur rek doo dugg sawar muy Abdul Ahad Abdul Ahad nga xam ne dañ ko doon bind ci miir yi di ko bind ci fu nekk ku nekk di wax sa morom ne ko dégloo mbaax mën naa ko mu det koo xam ne yow saw tur rek maanaam jéggal nit wala tàbbal nit àjjana la àndaale kooku ay mbiram rëy na lool Sëriñ Tuubaa yi wax ci moom ci am naa ci moom yaakaar yaakaar jooju ku ne xam na ne dëgg na dëggal na ko bu wér yàlla ñu yàlla taas ci barkeem ma ñëw nag ci soxna si ni ko laajee moom it euh, sëñ si dee ko jur waaye mu am jikkoy boppam jikko ju rafet yoo xam ne ku jëflanteek moom da ko naw fonk doomu aadama te amu yëg ci moom wér wér waaye fonk nitam loolu bokk na ci tax ma gën koo jàpp màggal Kazu Rajab dafa xat lool ndax ñun ñoo ko waa kër Sëñ Fallou ñoo ko seq waaye teewul dafa dagg yiteem yëpp ñëw ñëw ca kër ga fekk fa sama wayjur wu jigéen ba mu ñëwee daf fekk mu xat ba mu a agsi ci man waaye ci moom la yem maa ngi koy séen mu toog fa def fa jotaay bu yàgg yàgg loolu nekk lu ma marqué nag waaye noonu la koy defee ñëpp nag kon daal da ngeen xam ne jikkoom ju rafet ak man a defam lu baax tax na bisam kenn du ko tànqamtalu te yaakaar naa bu ñu demee ba ca ngoon ci cérémonie bi yaakaar naa da ci gën a xam dara kon loolu lañ ci doon si di nuyu mbooloo mi ñu fekk ñëpp soxna madame Dieye mi yaa ngi ma ko nuyoole léegi moom yàlla dogal ne maa ngi koy doog gis waaye euh, liggéey na liggéey bu rafet fa nekkoon ci soxna Fatou Diallo ndax ñun ñii di wax soxna si seq nañ politique euh, góoram bu maa ngi koy nuyu di nuyu mboolem ñi fi nekk waaye ñoo bokkoon ñoo bokk nekk ci APR lu ma wax sax ñoo bokkoon ñoo bokk nekk ci APR ba léegi man damay assumer samay responsabilité man li ma nekk bu àdduna bépp wanoon ko ginnaaw duma ko bàyyi président Macky Sall la ñu yàlla booleel yor na nguur yorin wu rafet ci anam anam gu sell nekk na fi liggéey bi def fi lu fi kenn mënut a def lu fi kenn mus sa def jeexal na jeexaleen wu rafet dem defin wu demeen wu rafet. tuumaal nañ ko lu nekk ci àdduna wax ju ñaaw ju wax nañ ko waaye kenn mus sa gis si moom lu ñaaw wala nga dégg ko wedd nag gis bokku ci te jii réew mi jóge na ci ay loxoom dem na ci yeneen loxo loxo yi mu nekk it ñu ngi ñaan yàlla oyofal ko te jàppal leen te leen. ndax bu ñu réussir senegal réussir kon yàlla leen yàlla defal tawfeex waaye njabootu politique gi ñu bokkoon démb nekkoon ci dara mus cee ñaaw àndoon nañu àndin bu rafet liggéey liggéey bu rafet ba li war a jeex jeex soxna Fat Diané ñu ngi lay yóbbante ci am nuyoo ci moom ku rafet jikko la ku am valeur la ku fonk jigéen la te fonk doomu aadama. maa ngi nuyu képp ku fi teew kenn ku ne sa tur ak sa sant di la jox sa yéeguwaay. sëñ Mamour maa ngi lay beral ak nuyoo yaag sa mag bi nga àndal waaye di beral ak nuyoo suma xarit suma sëriñ soxna maam Asta Sidi di ko ziar di ko jox yéeguwaayam bu baax a baax noonu laay nuyoo ñëpp di indi ay kàddu cant rek ndax daanaka sëñ Mamour wax na li ci ëpp solo muy taxawaayu soxna maam Asta mënoon a diis loolu te woyof Mbàkke mënoon a am noo mel wala noo doxee te defoo ko man sama jëmm ju tuut ju xeebu ji sax su ma jëloon yabooy di ko togg sama kër sax su ma ko ne kar su ma ko woowee soxna maam Asta ñëw soxna maam Asta day ñëw yendu toog ba yenn waxtu yi ci guddi dama ci am kersa sax lépp ci woyofaayam sama borom kër da koy wax mu nekk nag nit ku baax ko mun a taxaw nit léeg-léeg daf may toog su ma woowee ne ma ma dem Dieye dama laa gëj a dégg ma di ko tooñ ma ne ko wallaay Mbàkke damaa banque rek xam nga man suma ma damay feebar ñu ree bu nu waxtaanee ba kii damay raccroché damay toog tuuti rek jot message boo xam ne daf ma yónnee xaalis bu takk sono maam Assa nekk nit ku mun a boole ku mun a ñaw bu gisee faay fu mu am sax surtout ci activité politique bii ñu ne nga xamante ne si nekk si wetu kilifa dafa métti waaye su déggoon gars yi di ma attaque di kii sax da ngay gis coono gim ciy daj taxawaay gim ciy am ndax xam ne man ku ma wokk ma xurin damay defante waaye Mbàkke su ma nit tuddee ci naka su dul noonu sax dangay gis maanaam cofeel gi mu am ci man mm-hmm. taxawaay bi mu ci am day bàyyi bépp yitteem mm-hmm. ñëw Mbàkke kon yow ni ko sëñ maam waxee sa bis ku la ko fay doo mer ndax koo yëgal ku ko yëgal ak ku ko yëgalul soxna maam asta bu déggee ni mbir mi mu leer ko ne war na caa am taxawaay rek sol na dàllam dem te loolu mooy wàllu kilifa woon Mbàkke sa bésu maam bi ngay ngay ngay ngay màggal yàlla na ko yàgg di màggal yàgg koo kii sëñ maamu di nit ku baax ndax nit ku baax rek moo mun a wax ci nit lu baax nit ku baax nit ku am maanaam grandeur rek moo mën loolu te lépp a ngi ci yow ci fulla ji ci fayda ji ci engagement bi ci détermination bi ak liggéey bu rafet bu am solo bi nga def ci dëkk bi. yaaram sant naa la bu baax gërëm naa la bu baax wax naa la ko léegi nee naa la yow aw ma sa pay ci taxaw bi ak lépp damay sant sant maamam Serigne Fall. waaye waxtu wu cant gi amee xéewal yam fay andi moom ba cant gi jàll dañuy nekk di ci xéewlu kon loolu li ma ko wax léegi nee naa ko damay ñëw mënu ma laa fay de jéemuma ko sax parce que mënu ma ko kon yàlla sa jàmm yàgg bàlla ay sa bëri sëñ ñu ngi lay siyaar baax ah, di kontaan ci sa teewaay fii ci bisub Cheikh Abdou Lahad bi di siyaare sa mbokk mi nga àndal ah, ni nga ko waxee rek kàddu yi rafet na macha allah ñun dañuy jotal suñu cant rek ci yow ak jàpp goo ñu jàpp ak fonkeel goo ñu fonk ah di la sant bu baax di la gërëm ndax sëñ Maamun yow lu baax li ngay wax lépp ci yow la ne yëg googu ngay wax lépp yaa ñu ko ji yaa ñu ko yaa ñu ko yaa njëkk lebal ndax màggal ko sëñ Abdu bi ñuy door a xamante màggal jot na dangaa jékki-jékki rek ñëw te boobu sax minante ba ma yëgal la ko kon nga xam ni lu baax loolu yaa ñu ko njëkk a lebal doon naa dégg sa tur na waaye booba miinante wuñ nga ñëw teewal ma kon loolu ak yëg la ak jàpp nit te ñu nit képp koo xam ne lebal nga ñu lu baax rek dañoo fas yéene fay la ko waaw yitte ji matale na sëkk fulla ji ak fayda ji matale na sëkk ñang waaw di la ñaanal rek euh, fa sa maam yu baax yi tegoon seen tànk rek foofu nga teg sa tànk ci bëgg lu baax ak bëgg mbokk ak doonub taalibe bëgg sëriñ Touba bëgg lépp lu sax ci sëñ Touba loolu mën naa la koo seddeel bu baax ñan te dañuy waxtaane lu bari nga may digal lu baax di ma dolli lu baax nga nekk nit ku baax nekk sama référence lu baax rek laa xam ci yow maa ngi lay sant bu baax ñang di la gërëm di sant madame Dieye mii ni nga ko waxee rek noonu la demee ndax bi ko yàlla tegee ci wetu soxna Fatou Diané ah, def na fa lu baax def na fa lu rafet ba tey ji ñu mën koo seede wax dëgg yaatalal na ko jàppale na ko ndax euh, loolu mu doon jotal ci yow xëy na am na nu mu doon deme du egsi waaye nag euh, loolu lépp ab rafetal la ak mu baax te yow ku xam sa taxawaay ci dëkk bi ah lépp looy lu ñuy yëngu rek ñu war ñu war la caa ràññee bu ma sëkk la ciy sëb cër ñu jox la ko ndax ku am taxawaay nga ci dëkk bi te li la war lépp yaa ngi ci kon nag euh, maram Ndiaye moom dañ koy sant bu baax di ko ñaanal suñ boroom dolli ko ay xéewal te lii yal na doon lu gën ci moom yal na doon jiglaayam yal na doon yokkuteem soxna Faat jaaneet noonu lañ koy sant di ko ñaanal di ñaan yàlla yokk ko bu baax ndax suñu wëllëre la suñu xarit la defal nañu lu baax lu nekk loolu duñ ko mos fàtte ci àdduna ñu koy sant bu baax di ko ñaanal waaw jërëjëf. ñu nee mi ngi leen di nuyu bu baax te leen sant te di leen gërëm ci seeni fii ci kër gi. ci digganteem ak maam ab sami ndax maam ab sami ak jarbaatam la waaye du jëflante moom mu mukk won leen ni deret Serigne Touba la te ñun ñii ñëpp kenn ku nekk xam na ni la nekk ca barab ba Serigne Touba ko fa def te Serigne Touba nag kum defal yëg nga lim la defal waaye maam ab sami dañoo bokk ak moom ci néegum ndey ca lépp lu xew ci ñun dana bokk ca ña fay njëkk dana bokk ca ña fay mujj ca alalam dana fa ñëw ca ca ay at la ci digganteem ak soxna si bam naan danaa danaa seeti ma as sax boobaak léegi bu matul juróom-ñetti at li ko manqué bariwul ca diggante fii ak kër ga soriwul ca tey jii nee na moom mii bi muy ñëw daa laajte te nee na mëstaxaat bi mësu leen a yëgal dara ñu ñëw ca mbaa woo ko téléphone waaye bu loola jàllee waaye bu loola jàllee day xam ne seen diggante ak moom dem leen ci ay xew nekkul ni moo koy dundal la koy dundal mooy ak yëg-yëg gis nañ ci moom mii ma asa ak oyof toy gis nañ mu nangoo boot ñépp gis nañ ñu du xeebal kenn mbiram nit lum tuut tuut bu amee ci moom ci accès boo amee xew moom da ko yenul boppam waaye képp ku laal ci sëriñ Touba nii rek nga war a mën a mel doomu aadama yi sëriñ Touba booleel waruñu ci maanaam xàjj ak seen kenn ku nekk ak ci moom la yitteem dañ caa war a teg seen kéemtulaay kàttan ndax sëriñ Touba moo nu boole ak ñoom waaye moom maa asta mii jigéen la de waaye mi ngi dox doxinu kilifa ndax sëriñ Abdoulaye Dey ku amoon yitte la ku dëggu woon la ku liggéeyal yoonu murit la loola nag boo dee xool maa asta ni muy doxee. danga xam ni ci yoon woowee la aw ñu ngi koy ñaanal suñu borom sàmm ko ca aar ko ca dëgëral ko ca kàttanal ko ca dimbali ko ba li mu bëgg a liggéey Cheikh Abdou lépp maamam mu liggéey ko ci coobare boppam jërë ngeen jëf kontaan bu baax. ne gannaaw bi nu sant yàlla julli ci Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa ci siyaare sama mbokk yi ma fekk si Modou Mamoune ñoom ñi ak ñi toogandoo ñëpp. Mm-hmm. ak soxna yu tedd yi toog ak uh, mbokk yële. Mm-hmm. di wax ne bis la boo xam ne. Mm-hmm. bis bu am solo la ci yoonu murit ndax ki ñu koy defal muy Cheikh Abdou dama daan wax biñ gënee nekk tout tànk moom yàlla baaxe na ko. tout yi nga xam ne ñoo tàmbalee ci 40 ans suuf moo leen xamal sëriñ Touba ñi nga xam ne ay mag lañu itam doon suñuy wayjur jëm juróom-ñaar fukk fukk moo fàttali sëriñ Touba te Touba def na fi loo xam ne kenn ku nekk ci nun teg na ci bëtam ci wane sëriñ Touba bu wér ci liggéeyal ko bu wér ñam jamono ante la nit kenn ku nekk séq naa yow liggéeyub sëñ Tuubaa ba nga jëriñ sëñ Tuubaa boobu mm, mm, mm. kon kenn amul payam xanaa ñaanal ko rek fa mu nekk mu dëkk ak waajur mu tëdd wa Cheikh Ahmad Bamba di siyaare Sëriñ Sidi Mbacke bi mm-hmm. nga xam ne itam mooy xalifa Cheikh Abdou bi mm-hmm. ñuy wax wax ji bariwul mm-hmm. waaye jëf ji bari na ndax démb barki démb bi ma demee di ko siyaare wala démb la ci kër sëñ Abdou Lahad gii kenn ku ne soo sañoon boo fii jug bàyyi fi taaw bu mel noonu mm-hmm. ndax boo duggee ci kër sëñ Abdou Lahad da ngay jàpp rek na sëñ Abdou Lahad mi ci nii bii génnut mm-hmm. loolu nag dundal la mm-hmm. fonk la te am na solo lool kon loolu képp koo xam ne ni kilifa nga ci yoon wi doxe woowu sin si dox baax na lool te loolu kenn ci doon ko nekk mën na ko seede mm-hmm. kon bis la boo xam ne ñun taalib yi ñun bokk yi ñun xarit yi ñun wël yi ñun doom yi mm-hmm. ñun ñëpp ñoo ko bokk kenn ku nekk foo ci ne rek xamal ne suñu Abdoulaye moo la tax a jóg mm-hmm. yaa ngi ci la nga mën ak la nga mënut fii ñu ñëw tey ci maam Asta Mbacke doomu Sëriñ Sidi la te yàlla dimbaleel na ko boppam la ko bàyyam digal ba bisub tey ba fii ñu toog kenn ci nun ku nekk mën naa seede mi ngi ci digg loolu te dafa jafe ci jamono ni mu bindoo ak ni mu juddoo toogaay bi mu toog lu baax la duma ci détail ndax li ma bëgg wax xam ngeen ko kon loolu mën naa sant yàlla bu baax borom këram sama xarit la suñu Abdoulaat nettali na ma ci lu baree bari loo xam ne ci diggante moom ak suñu Abdoulaat Sëñ Abdou moom moo ko waxal boppam Sëñ Abdou Lahad mii di borom këram tey ci féete gum ko féete fépp nag ci yërëm gum ko yërëm ci kër yërëm ko ci dooleem yërëm ko ci poosam ndax euh, maamam soxna jaaratulaay noonu laa ànde woon ak suñ bu mag booba ba li ci xew lépp xew ci kon wutal sa bopp ci kër dafa am solo ndax jigéen bu nekkee ci barab li sëñ bi daan wax buñ ko muurloo ab séer sëñ Touba danaan wax ne ko bu la sa borom kër gërëmee yàlla gërëm na yonent bi gërëm na man mii gërëm naa moom mii nag boroom këram moo ma seedal ne ma gërëm na ko mu ngi ci biir kër gi defe naa bu ma déggute it mën naa seetaan image bi ci fii mu toll ci aas ak ni mu juddoo loolu góorlu ak jom moo ko ko may kon soxna maam Asta Mbacke ñëw nañ tey ci bis bi ànd ko yow. Mhm. ci bànneex. Mhm. ak kontaan. Mhm. te di ñaan nga yàgg koo woote. ñu yàgg laa wuy si ci bis bii. te lépp loo ci ñaan ci sa maam Cheikh am Cheikh Amadou Fada Cheikh Amadou Bamba. wala nga ñaan ko ci Cheikh Abdoulaye sa maam. ci sa darajaay baay bu baax bii. sama borom may la ko ñaan yàlla yi képp koo xam ne teg nga fi sa tànk yàlla faj sa ajo ni ñaan yàlla ñu yàgg ko fekkee ni ñu ko fekkee yàlla gën ñoo dimbale rek ci daraje Cheikh Ahmad Bamba daraje Cheikh Abdoul Ahad daraje Sëñ Sidi Mbàkke mi nga xam ne mooy way juróom waaye darajey boppam ndax boroom këram nee na ma gërëm naa ko moo ñëw ba sama kër ne ma gërëm naa ko loolu nag kuy wut ku ne soo sañoon dégg boobu baat boobu mm-hmm. ndax kuy wax te te jayu la mm-hmm. bu la waxee wan ngaa te yow mal xiyaam moom jigéen ji sëy duñ ko fa laaj dara mm-hmm. lu may borom këram mm-hmm. kon nag sa borom këram nee na gërëm na la mm-hmm. loolu tam ñun suñ xel dal na ci suñ xel sedd na ci te ñaan la tax mu wax loolu itam yàlla gën la fee bàyyi gën ko fee bàyyi te barkeel sa njaboot maam daa mën a taali bam taali bay mool daata koo bëdi naw yuru ba am ci aram njaay bët ndey ma ñàng aram njaay ba mayeen bàyyi ñoom aw nag nawa saatu kër la tuddoon mu tëleen ci mbooro samaama yaatal Kajoor samaam dafa am fukki taaw ak ñaar taaw bu mu sañ lëb dëkk samaam dafa taaw la yebal Malick yóbbu ko Masar Fall tekkee Njaan Malick yóbbu ko Tabbi Fall tekkee Anjoon Malick yóbbu ko Xeppooy Fall tekkee Leel Malick moo sañc Ndànd Fall tekkee Njàmbal Malick moo sañc Palmeew mu tekki Njukki Malick moo sañc Njukki Fall mu tekki Téyri Malick moo sañc Réesoo Fall mu tekki Yangooma Malick moo sañc Ndër mu tekki Yaay Malick moo sañc Mbel du cëfu maa njàmbal sama ak njuugu ma njàmbal mu leen toog leen pëleen déet di ma wettili du cëf maa njàmbal sama taalu di ci wàllil di ci wàllil moo taalu di du cëfu njóogu du cëfu njóogoy bàyyi bi Amadou Ngoné Sobel première de mai de Kajoor 1549 Amadou Ngoné bàyyi Massamba Takko ak Lat Ndiéra Paraar Massamba Takko yi bàyyi moom ram ak yaaye ak ma xuloo jaag bu dem benn ak daaw demba daaw demba xuju kuli sama am daa maa gëdd koo joor jee nga ci ñi ngeen am ci dameel maa jor ak abraan dameel da koo joojo juuf am ci ma dikkee joojo ak samburi joojo ak buréem joojo ak maa joojo maa joojo sama bi ne bijeen ni saax-saax ni buur ngay yaay jësa maag yaay jaw teen maag yaay ñoxo fatim maag yaay bay daam ñoxo fatim bay bur góor ci yaa seen maalik bay ma xuja faalik mu mi faat ci mber goor isa maay mii jigéen ndey di cew isa ak yaasin isa ak fatim penda ak ngunu latti ngunu latti ndi biigi nguune ndey saali biige ndey jàmbo saali biige borom ndull nee bu joxee surga yooyu macciroo ngan job faswa ngan job xaccew diini bu nguy goy naago dee naaki naan maxuju jolle ɓe ngendan messe jolle ɓe ngendan mbem koor jolle ɓe ngendan giñaax amadou ngoone aram mbaay giñaax dema daali gi dior giñaax dinga sambam ngaat cangaay mo ngoone leel dammeel dee calaw jàmb biram joojo dammeel maa joor amari ngu ne samaam dammeel la ma xoo jëkkuli dammeel la bi ma xoo jëkkuli dammeel la biram yaay seen maa joor la du ci maam la biram la ma faali la sàmba yaaye dammeel la birima samaam daw leen doo njoojam njoojam yen doo daw birima yendo fa maaw ngu ne faa borom bëgge samaam ne bëgge du ma dun kala jaane masa sata Jóob bàyyam dikkam xëriñ yaay laam yoonu asamoolu Moussa Fari Mata Jëng Amar Kaba Soose waaye loo baax doyut Cheikh Blaat sëriñ Sidi soxna maam Assa ñaxal sa kër maam dañuy wax ni soxna jang libaas libaas nu ma jang nu ma jang la ndeyam tudd sans baay daa woy léegi ma déglu vidéo bi xam li wax boo nee dameel mu ni faal keneen ku ñu woo dañ lay yónni amari ngoone sabel lamal deecee fu njoogu Kër Madior biram biram baa nga xuréja kuri daaw dem ba xuréja kuri ma Madior Fatim Gollañ ma xuréja kuri ma Samba Tàkk Amari Ngoone Salmi libéré Kajoor ak Bawol Amari Ngoone sama samaam li woo na Kajoor ba mu ñëw mu digal leen tëral leen ma Samba Tàkk doom woo na Kajoor ba mu ñëw mu digal leen leen ma xuréja ak biram baa nga ak daaw dem woo nañ Kajoor ba mu ñëw mu digal leen tëral leen Madior samaam woo na Kajoor ba mu ñëw mu digal leen tëral leen biram biram biram Fatim ci bu samaam woo na Kajoor ba mu ñëw mu digal leen sama baay wax na ko léegi kër Maajoor duñu tiit duñu daw ku yàq seeni wax defar ko ku rey seeni fas yéen doo daw luñ toggoo luñ jaar ciw ñal seeni wax du du fireeku ne ay léet bu gàcc déeb ren ñooy fande waaye sëriñ Sidi Cheikh Abdoul Ahad sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul boo ko tuddee way wu jeex gànnaar da koo laaj tëggagul tubaab bi natt ko dañ jànkiwul kajoor géey ko da béwul maamoor an la baayam tudd anta kan ndayam saliloo damburi sàmm bal la mbargu mbargu demba seen bëgg foofu nga dajeg réew mi mbargu demba la rek ak njugo demba ak njaay demba dem bint géej ba omar bu daam daam isa nga ma ci ñunóob njaay demba seen bëgg samaam daa leen ci kumba caam am ci aram loo kumba caam aram loo kumba caam moo jur ma jóob mu jur bakkar farma jóob Bakar Farma Diop moo jur Mbota Faye Mbota Faye moo jur Fawa Débér moo jur Aji Malick ñu ko demee seen bëggee mujjul mujjul sëriñ daam Abdourahmane Lo mujjul mu dun awa jàmm mujjul sëriñ sëriñ daam Abdourahmane Lo àll ma samaam nag moo leen xujj kumba sa xujj kumba sëy am ci gaydal xujj kumbaak sira xujj kumbaak daara xujj kumbaak ansee xujj kumbaak faalo xujj kumbaak yàlla xujj kumbaak maam jaan xujj kumba xujj kumba sëy jayle kebe fan ma sam war jaañ aram joor penda faal leen mbooy sëy ba dëkk dagana soxna maam asa yow yaay réew mi أياس من الله دجاء ولي إبليس إذ ناديته بيا ولي دجاء ولي إبليس إذ ناديته بيا ولي أياس من الله دجاء ولي إبليس إذ ناديته بيا